jërë ngeen jëf euh, mbokk yi ñu am mbégte dellu siwaat seen biir émission autour du micro euh, tey nag ñu am mbégte lool lool lool euh, fas yéene fi dalal docteur Cheikh Bamba Diagne économiste ndaw ñi di ko topp lool ci ay xalaatam ak ni mu koy faral di waxee mu leer ci bopp nit ñi te yàlla daf it ne lépp lu mu mës jëkkati di wax rek nit ñi teg nañ ci seen bët waaye laata loolu ma def benn précision parce que démb ci live bi ba ñuy wax ci arme yi nga xam ne dafa dem ci palais présidentiel dañu tuddoon benn société bu tudd Socatral Israël mais dañoo juum ñoom ci papier yi ma doon jox euh, ci manifeste bi kon may préciser ne Socatral Israël euh, laalewul dara ak euh, mbir yi parce que tamit dëgg moo neex suñu borom bu nekkee ne dafa am rectificatif boo xam ne da nga ko war a def dang koy def kon nuy wax socatral Israël la rewul dara ci armes mais armes yi mom yegsi na ba dem palé lolou je confirme et dem sax gis ngeen Juan euh, Branco commencé na ko ci ko wax mais ñu del ci suñu gan docteur maa ngi lay nuyu. <laughs> maa ngi lay fay Pape Alé di am mbégte jakarlok yow. Mhm. ndaxte damay nane dañu bok ci génération bo xamanteni Euh, dañ laa topp màggandoog yow. Mhm. xam nga parfois <laughs> damay naan bañ nekkee étudiant euh, ni nga sonne woon ci combat Idrissa Seck bi dañoo jàpp ne Idrissa Seck nga faral. waaw ci bëri dañ ko doon foog. nga ñu fekkaat la aussi ci combat Macky Sall dafa ni moom nga faral xam nga étudiant da ngay topp leader bu amee da ngay jàpp ni àdduna bi day changer révolution la. Mhm. ba bañ demee nekkee mag nag. gis Khalifa Sall ñu tek ko lu ko war a nga sonn ci. Mhm. man je pense que ba Khalifa euh, génnee kasso yow la bind message ne la. Mhm. yow rek laa laa bind message pour euh, féliciter la ne la combat bi. Mhm. dañ nga wétone wéetoon. tey xëy na ñu ngi koy tek Ousmane Sonko nit ñi nak naturellement dañuy japp nit naan ki euh, pouvoir la far wala opposition. mais nit ñi dafa am ñoo xamante ni leen yàlla bindee moy bu Balla don xex ak Yawou Dial ba tëdd ci ko mhm. sen combat moy yëkkati Balla ba pare. Mhm. so lu xew. <laughs> te pouvoir dafa am tool trop pour man nit nit ku bax ko gis pouvoir dal ci ko mhm. pour des raisons politiques nañu bàyyi naan kee la def pouvoir ba pare ndax pouvoir ñëpp ko bok buñu kenn ku yor pouvoir parti di doore nit ñu naan non non ñu def équilibrisme c'est un peu sexy quoi naan non renvoie une dose à dos c'est sexy il n'y a pas mooy lu gën a yomb ça coûte pas cher mhm. mais pouvoir nous ko voir nous ko abal yet nit mu koy dóore donc jàpp naa ne dañoo war a toll foo xamante ni ñëpp mhm. dañoo war a xeex ba génne pouvoir téyel ko suñu bopp bàyyi homme politique ñu politiquer ci li nga xamante mom la leen askan bi jox à l'Assemblée nationale c'est ci ay plateau télévision mais li am Sénégal moy ku yor pouvoir doole pouvoir ngay xexé te pour mhm. man kuy sénégalais war nga ku yor pouvoir di xeexee doole Sénégal ñëpp ñu xeex ak moom ba mu xam ne pouvoir bi ñu ko jox pour mu servir askan bi la mais pas pour mu dóor ci. merci beaucoup euh, belle introduction hein, vraiment alors l'actualité la ñuy tàmbali docteur. Mm procès Sonko man dama ko jàppee sorcellerie judiciaire te fi ma ko teg mooy topp na nit jiiñ ko viol enquête viol instruction viol ñu ñëw ci procès viol ñu génn ni loo xam ne <laughs> dafa jaaxal nit ñi ban jàngat nga ci def. en fait li ma ci li ma ci metti mooy amul benn sénégalais bu juum quand même. Mm-hmm. ñi koy topp sax. boo leen tegaloon kamil ñu waat ni violé wu ko. waaw président xam na ko. ku parce que xam nga sénégalais yi maire bi jaay caaf fii maire Mermoz mooy jëndee caaf dama ñëw kër mooy expliquer procès bi. <laughs>

ñu ko léegi nag leen lañu xamoon kenn ku ci nekk ci ñun da ngay dégg ñi ñu nekk au pouvoir naan non Sonko du dem élection hypothèse boobu la ñuy demee euh, Sonko du dem maintenant nu mu dul demee après xam naa ñu ne wii bu ñu demee bu ñu ko téye ci procès Mame Mbaye du dem élection waaye téye nañ ko mu bañ a bokk ci élection législative yi mu battre campagne gagné hum, hum. léegi il faut que ñu fexe ba du bokk mais du battre campagne qui qui muter mais non. mais l'autre c'est un aveu de dañ quand même non mais euh, euh, xam nga nañ une personne Sonko est devenu un état d'esprit. sais que si xam nga infusion def ko ci ndox. Mhm. ba Tu séparé si quoi dugg Son Sonko fi tu bu ko muy n'est di téléphone tu et ñu ngi fi tok di waxtane Sonko. ñom buñ ñu sax ñom ci Sonko dire que euh, journaux jour ku il faut nga bind dara lu lu ko ainsi de suite te sénégalais procès bobu euh, li tax mu sénégalais dès le début sénégalais c'était du quoi y avait rien du tout moom ñu ci am lu ci Sénégal. Mm-hmm. président gis ni ñëpp commencé waaw ah, waaw ndaw ñi amuñoon liggéey Covid bi moo taxoon xale yu sonn waaye génnuñu pour sonk wax yu seen wax yu wax yu ñàkk fayda yooyu président ne waaw déglu naa message bi comprendre naa leen ndaw ñi génne xëyu ndaw ñi quatre cent milliards. Hmm. defar yooyu yëpp dem ba xaw amaat dool ni li fi amoon doot fi amaat. Hmm. ça veut que. di tëkku di tëkku comme si que bii rëccoon na mais bii du rëccaat ñi ma ci xam ñëpp. dama leen ne su ma déggee ku jàpp ni mën ngaa Sénégal bi def Sonko lu la neex dama la yërëm c'est-à-dire que yow euh, waaw àndook ay gëstukat àndoog ay boroom xam-xam. Mhm. dootu fi man leen li fi li li raw loolu dina fi amaat parce que boo nekkee ci sa confort pouvoir di dégg lu la neex. surtout ay laudateur di nit dina ñëw ba leen ne yàllaa ngi laa nuyu. Mhm. gis naa yàlla mu ngi lay nuyu nga defal ni yow lépp yaa ko yor. mais ku xam Sénégal xam dynamique bi sénégalais yi nekkoon nga jàpp ni Sonko mën nga ko génne ci course dama lay yërëm ah ñu ñëwaat ci procès bi ak lañ defoon fee comme lu fi doot fi amaat ñu seen bopp jël décapité parti bi ko ci président bi à part nekk député mhm. responsable kaso absolument te ñu ngi continuer ba tey jii di jàpp nga décapiter un parti nga tëj résident surveiller son leader nangu ay téléphone portable attaqué ko armée mexicaine génn kenn xamul ku leen chef li ëpp li raw li nga amone amat te amul chef amul mot d'ordre amul nañ len dajelo fi hmm nit da ngay jangat te lepp loy waajaat fiñ ni président xeyna na na ci mom mu waxat euh, le parce que y a jamais 203. te bi lutax tax mu metti ken chef chefewul ken amul mot d'ordre xam nga beul dañ né Sonko dañ ko tejj sax euh, gendarme ñep dem fa. Mm-hmm. mais fi fan la nit ñi doon dem. ku nekk fa nga nekk fa nga nekk yëngatu et loolu moo loolu moo dangereux ci dëkk. dëkk ba Obama ré euh, Ben Laden. Mm-hmm. Boko Haram dafa génn Daesh génn ñu ñu génn ay ki yoo xam mënu nootuñ gérer réew da ngay nangu bàyyi benn leader muy wax ñu ànd ak moom di exprimer wu et eh, d'une manière démocratique mais violence bi booy yi nekk. Hmm. parce que dama xam suñu booy yi ay jeux de ay jeux vidéo violence lañ lañ lañ la fooye. Hmm. ragaluñu lii ñun mag ñi lu ñu ragaloon booy yi ragaluñ ko te li ma tiital te combat en combat il s'adapte dañu adapté wu. par exemple c'est une stratégie. bu policier nag ñun bu ñu ne Dakar lepp ay caméra la boy booy dañuy commencé di masqué wu. Mhm. policier yi ni ñuy dooree lacrymogène booy xam nañ léegi lan moy régler problème lacrymogène la chance qu'on a moy xam nañu seen policier duñ seen adversaire mais buñ doon xeex pour xeex ak policier yi. waaw da ngay gis ñu japp policier sax japp ko. libérer ko mais bu nekkoon yeneen dëkk yi dañuy ray dina metti non motax nak ñu wara taxaw.

amul kenn ku nekk parti au pouvoir xolam neex li coow li bëri yëpp. Mhm. koo ci gis buy wax sax dangay gis ni muy saxaaree. jaru ko et surtout avec arrogance ak benn insolence. boo xam ne ça renvoie à l'idiotie à la limite. mais à un moment donné c'est que li ngi leen di yërëmee mooy da ngay xam ni li li ñu bëggoon yëpp amul parce que li nga bëggoon écraser nit dal ci kawam ak li nga am lépp dal ci kawam écraser woo ko nga xam ni fi ñu jëm ak fi nga jëm ak kii yow stratégie nga tegoon yëpp parce que décapiter un parti isoler un leader nangu ay téléphone xex ak mom nit ñi attaquer le foot nek ba nga wat ginnaw te ciow jubul amul musuma gisuma ben leader passé bu woté gisumako hmm ça veut dire que yow peuple bi ngay xexal on peut pas on munoo gagner ce peuple c'est pas possible à partir de ce moment ñom ñep ku ci nek ya ngi waxé xol kenn waxee tuuti ak xel mais kuy waxé xel beulé japon nga ne organiser wu nga li nga amoon li nga mm. décapité parce que man sama xel dafa xaw a ñaw. damay mais Sonko les gens ont tout fait pour ne a député parce que dama dans son parti ñi nekk député rek lañ tëjul. non en réalité la bonne version est que Maki a éliminé la liste titulaire de Yewi Askanui à cause de Sonko. l'ordre qu'il a donné au conseil constitutionnel c'est empêcher à Ousmane Sonko d'être

départ bi c'est une décision de la justice aujourd'hui so xolé 2021 la volonté de Serigne Bassirou Gueye pour dire Sonko son indi won mbir yi législative ben éliminer liste titulaire mo quatre morts tout fait mhm. c'est une décision de justice la crédibilité de l'institution judiciaire mais xam nga la justice est rendue au nom du peuple mhm man tant que maa ngi dégg ñu naan force reste à la loi dama ne kon la loi a un problème. Mm-hmm. loi bu jaaree yoon nit ñi dañ koy nangu mais boo ci bëggee boole doole rek xoolal sa loi bi nga bëgg a imposer nit ñi. Mm-hmm. Sénégal dof yeewootu yeewootu fi dof yeewootul Sénégal boo posé benn acte juridique mm-hmm. nga tëpp yëpp kii dafa violé ëpp ñëpp jóg mais. jaaral ci yoon bi dafa am ngay kayitu leer jaaral ci yoon bi mais bañ ko bëggee njëkk a tëbal rek sans jaar assemblée nationale. Mm-hmm. ci laa ne yaa yaa problème. jàpp ngeen ko am ngeen ay affaire mais jaar leen ci yoon bi Sénégal li ñu wax nga ne affaire yaa ngi nii parce que sénégalais du ñu faral nit ci caaxaan. du ñu faral nit ci tool gis nga dama nit nga koy toppee viol sax nit ñi di ko gën a bëgg mais pose-toi la question sénégalais nit ñi bonewuñu noonu. Mm-hmm. fi ben nit du xam nit violé na nit ñu xam ko ba paré nit ñi bëggel bi di gëna yok mais ñi bëgg Ousmane and ak mom mais am nañu respect bo xamante nga ko am ci ñom mais boko ko bëggee violenter ñàkk respecté ay ay kiiwam sa yoko défé ay nit dé moi je me pose la question toujours Sénégal léegi ñu yombalé dé banaliser. et dama dégg dem ministre de la justice mu né ah koo xamante ni saa yu woote ba mu jaaree nit dee

yow nan ngay wootee manifestation ay nit ngay rey ay nit yow yow yow manifestation bi. amul fan la am ci aduna mais nit kooku lu ko rey et puis noo mën a jëlee argument en tant que état institution ministre de la justice noo mën a jëlee argument boobu bon saa yi génnee bu wootee nit dee ça veut dire quoi kuy rey nit kooku et puis c'est quoi le problème parti au pouvoir ban problème la am ak opposant buy buy mobiliser xam nga Khalifa Sall ba mu commencé génn ne day dem Tamba. lan nga jàpp dañ ko jàpp mais pourquoi dans si espace politique bi kenn du mobiliser ci ci àll bi ci région yi kenn du politique te jàppuñu la ma man ma moom problème c'est à ce niveau c'est-à-dire que képp ku présidentiable woote ay nit yaa xeeti Ousmane bu wootee Tamba euh, Ziguinchor doxo doxo dox ba Dakar lu suñu yoon parce que. mais c'est en fait le fait même de banaliser. qui bi sax tax mooy tax mais mais xam nga xam nga Facebook ak yoy bu amul won wala ñom tamit ñom ful ak fayda bañ ko seetaan. mais où est le problème Ousmane bu démé demee ga fat ko ñaari yoon waa ko ñu xam hey ñu dañu liggéey té mom carte wa waa ga la soxla. Hmm. xana do soxla ay carte nit di len merlo mais lutax rek police ak gendarmerie ñom la la la mobilisation manifeste parce que politique Sénégal ngenté sax dañ dan daan bari tani mhm. vraiment Sénégal loolu dañ ko mës banaliser c'est pas da ngay ñew mer tu ci ben ko ñu fat ko nga def marche arrière mer saga saga dem sa yoon mais mais légui dama gis ni au-delà même de ñokk ñu ko koy mais nit da ci wara dé mais est-ce que loolu aussi du révéler la fragilité du pouvoir et la fébrilité non xam nga man j'ai écrit un livre sur la politique au Sénégal. Mmh, très bien. Le grand problème du, du président Macky Sall, partem thème, teel a ñëw au pouvoir. waaw. premièrement amoul ay ay homme politique yu dëgër parce que ba muy génn ci euh, Ablaye Wade di ñëw àndul ak woon ay homme politique yu amoon carapace yu dëgër. Mhm. parce que ay Aline Badara Cissé yàlla na ko yàlla yërëm. xëy na ñoo ci ëppoon en vue absolument c'était un grand monsieur c'était un intellectuel c'était pas un homme politique. un homme de principe voilà c'était un homme très bien. et mais d'ailleurs d'ailleurs la première des choses. c'est que quand il est arrivé au pouvoir c'est de l'éloigner. mais l'autre je l'ai je l'ai calculé <laughs> je l'ai calculé président bu à ban moment les commencer à écarter ni ko Abdoulaye Wade bo jëlee Senghor deux ans après mo ci gën a yàggale deux ans après enlevé 62 la enlevé ñoom Mamadou Dia Joseph Mbaye ñi ko mëna wax dëgg ñëpp Abdoulaye Abdou Diouf mo xawa a traîné tuuti ak ñom Habib Thiam moo ci gën truc mais 24 heures après la élagué Senghor mom, ci ngoon si ba ko Senghor fare ci ngoon si la élagué. <laughs> Abdoulaye Wade ba mu commencé génnee ba mu faloo génne ñoom. Moustapha Niass Dansokho. Dansokho ci la Macky Sall ba mu génnee Aline Badara Cissé ba Mimi Touré génne leen ci la maintenant nek le tout puissant Macky Sall maintenant dafa mel ni amatuloon ay nawle ci parti bi. ay sujet ay sujet la amoon Les sujets yooyu day tax moom rek mooy xalaat ci parti bi buy def erreur moom ak Ngom non Farba Ngom Mon ma mon mënu sañu maa wax naan day xalaat <laughs> mais mais dama jàpp ni moom rek muy xalaat bu defee erreur erreur bis. du yam rek ci parti mais day du wat wàddu ci Sénégal. Mhm. et ce qui est dangereux dafa dem ba si ak mu and ak ño xamanteni amuñu benn culture politique te ñooñu léegi ñoo yor réew mi man su ma gisee Ismaël Madior di wax damay tiit su ma gisee Antoine Diome di wax damay tiit ñooñu bu ñu amoon culture politique tuuti. ñoom dañuy dinañ ils feront tout pour sauver le président Macky Sall parce que gis nga nit mën nga nekk ci benn yoon. mu xaw a metti nga dëgër sax yow ñu la waay bàyyil rek bàyyil ben, rek xam nga oui kii jaru ko quoi parce que sa réputation ni muy yàqu sur le plan international affaire nu muy demee nii bàyyil ben, rek parce que politique li ci extraordinaire. Mhm. sa xaritu benn bakken gis nga Macky Sall gis nga bu deful troisième mandat xeex ne damay xeex pour Pape Alé mi nekk mooy sama xarit benn bakken. Mhm. na xool exemple Mauritanie bii rek. waaw di nga xam ni politique li gën a baax ci yow mooy nga appliquer démocratie boo appliquer démocratie peuple moo lay protéger boppam mais ben homme politique de protéger moromam gis nga bu amee beneen président bu ñëw sénégalais yi seen mer wàccul bopp Macky Sall offrir sénégalais yi moo tax politique li may homme politique bu ci nekk appliquer la démocratie mais c'est très profond. Hein? non mais c'est que c'est très profond. mais xoolal Senghor nu mu def nan la xeexee ba jox nguur gi Abdou Diouf. pour moom moo gën a neex a manipuler. manipuler. ca ngoon sel ko Abdou Diouf. xam bu tout à fait. ca ngoon commencé di ko attaqué defar ay journaux ñu koy attaqué ba Senghor bëgg a ñëw mu yónni paay ñoom Assane Seck ak Maguette Lam leen ngeen wax ak moom mu toog mu toog <laughs> te pourtant jàppoon na ni kii moo gën a neex a manipuler amul mbokk amul xarit moo tax démocratie dafa metti mais bu ñu koy appliqué mooy au moins peuple bi mooy naan ah Macky Sall kat def na lii rafet na ñun peuple bi du ñu bàyyi benn président di ko toroxal di ko toroxal mais gis nga ku mu xeexal ne day liquider ñëpp ba indi nitam ku mu jàpp ni kii bu fi toogee man dinaa am jàmm kooku bu toogee li mu njëkk a def non Macky mi xam na affaire nu mu demee kii su ma ko bàyyee fii man du ma du ma diriger mukk man kii laay doon marionnette laay doon Macky Sall njëkk a liquider moo tax bu xamee politique jàng histoire politique histoire grecque antique ba léegi amul kenn ci àdduna ku mës jox nit politique jox nit pouvoir ci lo ci nii. Mm-hmm. muju nek foofu rek nek un petit prince ñu lay amul amul démocratie rek mo lay protéger ci lool un Barack Obama tay kan moko ko ken ken parce que en réalité c'est le peuple qui le protège. mais euh, euh, il Il se fout? se fout, tout à fait. au Niger kan moko ko mais ken ken ñëw koo laal. il a un traitement de présidentiel à vie. gis nga Alassane Ouattara parce que li def mo raf mo kii gis nga Alassane Ouattara lu mu def bagbo yëpp. bu joxone peuple euh, ki bi démocratiquement. Mhm. peuple bi protéger peuple mo gëm surtout peuple du Sénégal damay wax ak ay collègues nous sommes au Sénégal mën non les hommes politiques surtout nous sommes au pouvoir nous avons sen, sen, ñoo am sur ci démocratie mais le peuple jamais je n'ai été aussi fier de mon peuple. oui parce ils l'ont montré pendant les législatives. et donc on a vu la crise bi. waaw yéen li ngeen bëgg du am. xam nga dañoo jàpp ni démocratie sénégalaise mi ngi wàññeeku wàññeekuwul. Mhm. ñi pouvoir le pouvoir, la culture démocratique di wàññeeku mais peuple bi ba légui il tient à sa liberté. Mhm. parce que xex moo ko may li mhm. xex mo li li am ni budul won xex peuple bi du ko am te kenn du xex ak sa peuple. tu vas jamais gagner. parce que bu doon Pastef la Macky Sall di xexal match bi jeex parce que décapiter na Pastef tëj na leaderam nangu ay portable def ko résidence surveillée ci ginnaw fi waaw mais taxul nga yaa ngi xeex ak ño xamanteni ni xamoo ban mot d'ordre lañ jot man ne sais ban moo door le waa la la di à partir de ce moment on ne peut pas se battre contre son peuple maintenant les sénégalais sont foncièrement démocrates mhm. démocratie du Sénégal dafa faut que nous il faut que puisse politique que xam démocratie démocratie Sénégal. mais les juges aussi doivent le savoir. mais moi, je ne sais pas si nous sommes ñun nu mu leen kan nous ku ci nekk ñun rek ni nga et c'est ça qui fait mal et pourtant ñu bari ci ñom nit ñu bax lañu. bien sûr mais da ngay xol légui rek légui gars gymnastique yi ñu def. Mm-hmm. pour euh, pour am jugement yi ni mais après ku ci nekk na xol dans sa conscience li mu indil Sénégal lii du Sénégal parce que le peuple dit non et parfois non yi day violent peuple muy waxee non. voilà c'est pourquoi c'est pourquoi ma ne la nan ngay analyser violence bi ñu parce que man damay dégg ñu wax ne wuy xale yi lu ñu yàq dafa bare ak yooyu ma leen mais avant ça ñaata bakkan moo rot. lañ rey am ay famille endeuillée te ñooñu seen bakkan yooyu du dellu si waat mais moo tax man demee naan en tant que économiste dama rus di wax ci yàq. matériel dégâts dama ko rus tant bu bakkan tëddee rek non dégâts matériel parce que dégâts matériel ay conséquences la yooyu yëpp ay conséquence il faut que ñuy dem ci la cause gis nga man su ma su may wax ak yow ngay nekk ci conséquence yi non damay xam ne duñ juboo mm-hmm. da dellu ci cause yi. nga xam lu tax lii am tant que ñëwoo ci cause yi les conséquences moom naan ki may mais xa sa soxna sax bu ngeen xeex mu mer toj télé bi. après da nga jëndiwaat télé. Ah, ba après bu bu ñëwee ne la guddi gi ma la baal ma looy def ah, bu bu beneen bu ko tojee kaas yëpp lay toj rajaxe lépp mais après <laughs> bu dee sa na moom mi nga xamante ne mooy saraan ci télé bi mooy dëkk ci kër mooy toj lépp mais massa man ak peuple moo tax chaque fois lépp lu ñuy def ñuy dagg ay TVA ñuy fay ay impôts. pour jox ko nit moom indil ñu démocratie xaalis bi ñuy jox nit état mooy ñun bu ñu meree. Mhm. mënu kenn mënuñoo contrôler léegi nag dañu lay jox xaalis nga defal ñu démocratie pour lépp jaar yoon ndax ay magum jëmm lañu bu lépp jaaree yoon man ba ma nekkee université bañ daan codification ñuy reyante. Mhm. i bëggee daf ma woo ne ma mais Xaadim lu tax codification yi ngeen dóorante jaas di reyante ma ne ko ah mais first in first out la ordre kii la ordre d'arrivée la man la solution ma ne ko def ko man ma ne ko def ko ordre de mérite man je suis je suis un secrétaire général d'amical bañ ko defee ordre de mérite bu ñëw ñu ne FASEG am 200 lits ñu affiché ki jël premier ba ba ba ba ki jël 200 200. 200e place 200e place boo ko affiché boo ñëwee da ah kii moom a raw mooy 11,50 lamb ki kii ñu mujj jël 11,52 lamb amatu amatul problème résolu amatul rayante parce que nit mo bëgg ñu koy jaarale ci yoon. mais nag da ngay am pédagogie par l'exemple nit man munu doo ma jaarale ci yoon ba pare naan ma toppal comme ay sëriñ naan ma par exemple euh, waxal toppal li ma lay wax mais bul topp li may def amu fi. Hmm. boo ñu jiitee non da ngay da ngay jaarale ci yépp ci yoon démocratie suñu xaalis la jox état ren dañ ko nattal six mille cinq cent milliards. Hmm. c'est pas pour mu jënd ay lacrymogène gendarmerie tout du loolu li ñu ko sant rek mooy na doxal démocratie. gis nga bu ko doxalee sénégalais fi amul ben sénégalais bo xamanteni ni mbir dinañ ko jaarale ci yoon muy yàq mais nit bu demee ba yàq lo xamanteni ni da koo soxla nga xamni ko xol xol bi jeex na est-ce que c'est une crise de confiance aussi des sénégalais par rapport à nos institutions. ñett ñett bin na ko sama livre confiance peuple. Hmm. da lay am ci yow confiance. bu demee ba nga commencé wacc yoon bi mo commencé méfier am méfiance. Hmm. bu méfiance bi jeexee nag c'est la défiance. dalay défier dootu la rek confiance méfiance défiance défiance après d'autres ragal et li ma gën Sénégal nit ñi ñu mais parce que tout simplement xam nga l'a mené en prison emprisonné 600 jeunes manifestation plus de jeunes sont descendus dans la rue moi démystifier nañ 47e 46e de. ils sont ils sont 12 millions Ils ont ni réglé woo seen problème. Mhm. sur le non réglé sein seen problème.

xanaa kii war naa koo topp ne ah bu génnee ndax day contre wala day mais booy ku ci génn détermination day mel dañ koy multiplier par mille. Mm-hmm. mais mënoo dëkk ci jàpp ci say say njaboot parce que kenn koo jàpp jàppoo ko moom kese de. famille nga jàpp famille nga jàpp. famille nga jàpp kenn koo rey rey ko moom kese de peuple bi yëpp nga rey xale yëpp nga rey à partir de ce moment day dem ba à un moment donné damay naan euh, pour parti au pouvoir egg na foo xamante ni mu ko gis parce que ñu ngi ñu ngi ci biir ñoom mënuñu ko gis mais mer gi fi mu toll bañ bañ la gën a jege bañ. Eh, ñu bañ leen xen te xen boobu. li ma ci mais est-ce que c'est parce que c'est pas parce qu'il gouverne par la méchanceté aussi parce que tëj rey tëj rey tëj rey. jargon boobu c'est banal mais non mais c'est que c'est que culture ku am culture démocratique. Mm-hmm. Pape loo sa njaboot sax loo ko neexul am ko ci. du gëdd nga koy amee. nga boo ñëwee say doom yëpp daw boo ñëwee say doom yëpp daw mais leen leen metti doo ko xam. Mhm, mhm. mais bi mhm. billaay bu ñu la mënee posone posone la. parce que nit la yàlla sàkk mu bind ko ci liberté démocratie c'est que man damay naan xaalis bi ñu nattal Macky Sall su man sa su may fay impôt mais man man bëgguma dara ci état ah. lu dul nekk am démocratie am jàmm. am jàmm am jàmm man bu ñu ñëwee keroog benn waay naa ma fii am ñu toj sama oto man ne ko mais bu ñu tojee sama oto ma xam ne booy toj nañ ko. mais man booy defuñu ma dara man bu ma jox sama di fay impôt dama bëgg président Macky Sall état bi ñu xam ne xaalis bi ma leen di fay man kuy nekk président sama yoon nekku ci ñoom ñoo ñoom ñoo ko tal ñoo koy xëccoo ñoo xam sama yoon nekku ci kuy nekk président. man sama devoir de léegi comme loolu def na ak maa ngi joxe sama xaalis xaalis bi ma koy joxe nañu xeex ba mu ba réew mi am démocratie ma xam ni. Mhm. boobaa. sama xaalis kat dugal naa ko ci réew mi def nañ ko foo xamante ni ñëpp yem nañ ci. inégalité yi wàññeeku nañu.

on ne vend pas au président Macky Sall la peur Madame, si je vous loolu ce ay nit. les sécurocrates les ñuy wax oui parce que vous déggee un jargon force occulte force spéciale commando rebelle lu ne et tout ça c'est du toc rien n'est vrai. mais ce li ci veux dire, le président Macky Sall président de la république le ministre de l'intérieur. Mhm. Antoine Diome ministre de l'intérieur nekkatul procureur. ok <laughs> merci. waaw je c'est-à-dire que en réalité il faut que ñoom ñëpp ñu désinstaller logiciel mental ba ñu nekkoon indi logiciel bu bees mais ku ci nekk da nga bëgg garder tous les logiciels bu bu màgget ba bu bees bi. da ngay da ngay da ngay da ngay da ngay da ngay jaxasoo da ngay dem ba da ngay tiit il voit le danger partout Sénégal mosuma gis dëkk boo xamante dañ naan dafa am ay forces occultes pourtant saa yi ñu bàyyi li lépp del jam nit ñi del seen soxla force occulte bu fexé ba commencé yëngal du taxaw. Mhm. ku yen lu yenn maana force occulte yor ay arme kay xana dañ leen ñaanuma ko yalla jam nañ ben policier jam nañ ben gendarme et ñu ne ah amna kat ñu yor puisal jam di jam di jam sax force de l'ordre ay boy rek ñoo dee. ay ah, boy rek ay ah, force occulte mo ko kan lañ faral. xanaa duma nek force occulte wala faral ma <laughs> manifestant force occulte da gendarme ak ah, policier. ay manifestant rek la ñuy rey. jàppaguñ sax nervi waaw nervi sax jàppaguñ ko waaw kaso yi li muy fees jàpp. jàpp ñu ne jàpp ñu ne donc posez nous les bonnes questions. Hmm. donc à un moment donné gis nga Sénégal lépp ñàkk na fi ba mu des xel. Hmm. ba mu des xel euh, moo tax ma la euh, Antoine foo mu nekk ministre de l'intérieur bàyyi nekk procureur parce que pour pour man dafa des dafa boole ñaar logiciel yi ci boppam loolu da leen di sonal il voit le mal partout fii kenn bañu fi kenn mais ñun lu ñu bëgg moy réew mi am démocratie bu tànn jotee ñu dem tànn. xol ku neex ñu fal ko mais euh, Angleterre xol lu mu rawee Sénégal. Mhm. Angleterre fal na fi Boris Johnson. muy dugg ci ci di drogué wo ko. du na mais c'est ça mais Trump américain fal ñu fi Trump. waaw le plus puissant mais où est le problème. mais yow ñun buñu bax amé sax dof bo xamanteni ñun Sénégal ñun la neex ñu fal ko mais mais nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Mhm. mais man magum jëm bu tal ni man chaque fois rek parti au pouvoir moomee nan non non non yow mënoo tan léegi ma lay tanal nga tan ci lima tan pour lan ma may tànn ci lu président de la république tan bo xoolee 2019. Mhm. il a élégué 19 listes moy ci parrainage -hmm. Khalifa Sall Karim Wade jàll mu mu éliminé muy 21 bàyyil ma fi Madické Niang Cheikh Issa Issa Sall. Idriss Seck Sonko. match bi jeex nga jël Issa Sall Madické euh, euh, non Idrissa Seck. Idrissa Seck mu desale Ousmane Sonko sénégalais ne comme je mo fi des ñun liñu bëgg bu pouvoir mom contre pouvoir. oui pour démocratie bi respirer parce que de deful démocratie mhm. c'est que les gens nous, nous ak Sonko ñu c'est la personne de Sonko ne les intéresse pas. Mhm. mais réew da un am pouvoir un contre pouvoir mais c'est surtout sur son courage et sa détermination à faire face à la machine de Macky. mais, c'est que pour la première fois. Mhm. parce que nous mos ni non l'État c'est un bulldozer c'est une machine pour démarrer ça écrase Wadi défié. défier taxaw ñu bëgg ko écrasé politiquement il a résisté xam nga Sénégal nous ñun ñëpp a ci ah. mhm. mën nga mais nit ñi dañoo bëgg góor les gens on veut un homme quoi un homme. un au homme. sens plein du terme un homme c'est quoi vous bu un nga Sans que je dis que même ses ennemis. dañ ko respecté dañ ko respecté parce que li muy subir ni. non ku ko ci subir woon ci ñenn ko subir mënuñu ko subir c'est-à-dire que même ses adversaires dañ ko respecté parce que tout le monde sait que li muy subir ni. du yoon doole lañ koy jaay te xeexuñ ko d'olé politique man loolu metti c'est que bu ñu ko doon xeexee doole politique y' a pas de problème. oui mais dans état lañ koy xeexee. da ngay gis nit ñi bu ñuy wax nga un ministre buy wax ci dossier bi mais da ngay sentir il déverse sa bile. Mhm. comme la bave à la bouche. force ça à la loi mais force ça à la loi non il est le père de la nation le président de la république moom moom moom lañ dénk njaboot gi mais mënuñu laa dénk njaboot gi hein mais parfois da ngay déglu ministre tu as envie de pleurer. ah moo ne day ñëw def cooki fan léegi yow Macky Sall moo waxoon ne day déloger Ablaye Wade nag mais yooyu waxi politique la. waaw ah comme ay mbër yi taxaw mais loolu dañ ko jël yóbbu ko au premier degré nee day ñëw Dakar def cooki fin waaw euh, lan la jiwee Dakar def cooki fin nga jàpp ko xanaa boo ko jàppee euh, Kolda kay mooy kii cooki fin bi jeex na. <laughs> <laughs> koo xamante ni nga ne ko coppet jàpp yóbbu mais jël affaire bi ngandal ko ngandal ko ah dafa ñu mortel combat cooki fin dina ma rey mbaam rek mais loolu. mais est-ce fond. Sonko ne les ridiculise pas parce que soo guissé ñu jël les forces d'élite yi nga xam quand ñun dañ ko doon dégg rek de. waaw ça je veux dire que man c'est ça qui me choque quoi moi ngi jël ay GIGN ay BIP nga xam ñun man par exemple c'est quand je faisais les reportages ci ci ci ci défilé la leen du gis génn avec. nga c'est pour le grand grand banditisme quoi est-ce que tu ne l'es pas en train de les ridiculiser ah, je suis un fils d'homme de tenue voilà ok li ma gën metti li ñu commencé di di di di. di banaliser di banaliser les hommes de tenue ñun ñëpp entraînement bi sol affaire yooyu ba ngay xale nga dagg sa kawas. kenn sa bët dafa ni yow yaa ngi mais yooyu léegi ñu dem ba banaliser ko. Bamba doguma la man def naa benn immersion ak waa GIGN. Ah. ah non. Euh, c'est ça y est dans le truc non, mais c'était exceptionnel. non c'est un rêve c'était oui. un rêve Motax buñ bu ñu leen jaru ko nit kese c'est que. waaw c'est comme si mais état mais lepp moy xax ben ben nit homme tenu dafa ne ma bi j'ai beaucoup de respect pour lui donc mon non c'est un homme c'est un homme ma xamni ki xeyna xëy mën nañ ko jox ci mo war charger Ousmane mais respect la am ci waa respect loolu baxul bo demee ba ñi nga jox ordre nga xam dañ ko exécuter am respect ci ki nga xamanteni lañu la dal ci kawam ndax xam nañ benn homme politique mënul accepter mënul mënul mënul supporter lii muy supporter mais pour lan ndax dafa bëgg nekk président de la république pour lan ndaxte dafa bëgg président bi am ku ko challenge pour lan sénégalais yi ñoo bëgg moom pouvoir am opposition pour lan ay xale yu ndaw ñoo ne léegi ñun politique classe bi yor ñu fi depuis 1960 dara soppeekuwul dañoo bëgg léegi affaire yi changé lu ñu bëgg affaire yi changé mooy lan xam nañu koo xamante ni xam nañu gis nañu son cursus. Mmh. fi mu jóge ba fi mu toll nii am na lum ñu woo ah ñun kat gëm nañ ko bëgg nañu ko sànnil suñu carte mais ñun du fi amee di nga ñëw du dem da nga jox ma la non Ousmane du dem mais loolu mooy lan Ousmane du dem mooy lan. pourquoi mooy choisir la place mais mais pourquoi ñun ñu war ñoo tànnal ci biir tànn et am ñoo xamante ne jàpp nañ ni moom téye woon na leen. Mm-hmm. war na leen bàyyi ñu ñëw pour mu bàyyi leen Pape Alé dinañ xëccoo ma ak yow benn affaire. Mm-hmm. yow nga yow nga bëgg ko nga téye ma. ne di nga ma bàyyi pour nga jël li nga soxla yow mais boo may bàyyi fekk ça va être trop tard maa koy mënuñoo xëccoo course benn affaire ma bëgg ko nga bëgg ko te yow yaa ma takk yaa yar yor caabi ji may tekki nga jàpp ne yow dinaa la di ma tekki man ci heure bu baax bi pour pour nga gagné yow li nga soxla mais nit da ngay am xel tuuti. c'est important mais est-ce que tu pas choqué. Hmm. ah en tout cas tout le monde entier est choqué par ça. Hmm. les milices. mais musuma gis te milices tout le monde sait que l'opposition n'a pas organisé des milices. quand même il faut être sérieux quoi il faut être honnête. Ah, lourdement armé tout le monde sait que Sénégal de boo xam armes de feu circuler comme Libéria ou Yen dëkk qui. quand même. ah mais mais le man li ma gën a tiital affaire Armes, dañ ko les les corps habillés. habillés absolument léegi ñooñu boo leen les arme. waaw léegi armes, yooyu ku leen moom ak koy récupérer.

commencé wax. parce que li nga leen di jox matul dara te bu ñu demee tuuti joxoo leen ñu takk rajo yi. ñu takk rajo yi yàq réputation Sénégal yàq réputation suñu force de l'ordre parce que suñu force de l'ordre yi dañ daan wax naan mission Nations Unies yëpp ñoom ñooy dem mais ak li xew nii jàpp nañ ñom du entaché ci sen réputation. ah oui parce que ils ont vu parce que ce reportage sur les médias internationaux ils ont vu que les forces de l'ordre euh, ont laissé faire ces jeunes sans les arrêter. mais ak ay xalé yi ñu jël ñu leen xéer ñu euh, des enfants. jël comme bouclier mais lolu Nations Unies dans jël Sénégal au moins j'en connais beaucoup de policiers wala beaucoup d'hommes d'habits ci ba mën tabax seen kër ndax seeni salaire demewul noonu. mission yooyu dafa am solo ci ñoom. mais est-ce que ñoom ñi ngi xalaat mission yooyu ak parce que nit da ngay xalaat lu xaw a lu xaw a kawe loolu parce que benn nit rek tax ñu yàq réputation Sénégal yàq li Sénégal gënoon baaxle politiquement essayé nga baaxul essayé nga baaxul bàyyi c'est-à-dire que fi jëm nii moi je me dis que ni on ne produit que des mécontents parce que kuy policier kuy militaire kuy gendarme sa xol neexul.

waaw foola parce que am na ñoo xam ne ñu ratatata dafa neex quoi seen yoon nekku ci foola nga jox leen lu toll noonu mu war koo téye kan moo koy récupérer ak bu koy fan la koy déposer ñan ñoo war a yor arme yooyu sa mais c'est c'est <laughs> damay naan damay toog ba chaque ma ne c'est très grave mm-hmm. ce qui est grave mooy lan arme yooyu fan lay mujj ndax xanaa jàpp naa ne police warul moom arme yooyu man loolu laa jàpp xanaa Ah non, ils ont été dans des pick-up et tout ça. Ah, hein. les, les et puis Juan Branco a sorti euh, un document qui dit que on n'a jamais vu un palais présidentiel commander des armes. Non. selon le document de Juan Branco. ça et fait que... peur mais les armes il fan les mouiller. Il faut les mouiller au fan Sénégal eh, Ça fait politique gars faut ou à wax ba mais les am et armes Les graves grave mooy bu à commencé dal ci ay un

suñu borom bo téyé mu mu bañ parce que suñu borom mom lay neex muy nangu. Mm-hmm. mais nga téyé mu bañ nga téyé mu bañ nga xol li li ci ñak ñëpp xolal xolal président Macky Sall lu mu ñak ci combat bi ak Ousmane Sonko. et son image maintenant sur le plan international. et sa réputation et sa réputation est complètement et la réputation du Sénégal. la réputation du Sénégal. ah mais ñun léegi moom ku ku mosaan génn bo ñaar minute nga wax non chez nous chez nous. chez nous mais kan moo fi chez nous légui <laughs> ba mu demee Côte d'Ivoire ba Ivoiriens yi war a wax Sénégal bañ tégg affaire mais nous ñu sommes pas loxo sur le Sénégal avec un brin de sourire moi et puis partout hein, moi j'ai des confrères c'est des débats qui sont organisés partout. man man et la diaspora sénégalaise aussi participe. excellemment sur. La euh, diaspora. il vous que nous a conscients que nous sommes ci bitim réew. ñu nekk ci biir parce que premièrement dem nañ confronter nañ le li xew sommes réew mënal nañ seen qui mhm. kenn kenn ñoom comme fii ni nga ni ken amee kenn am nañ liberté mhm. liberté bobu ñom ñu am motax sen expression dafa am solo ah, ils le font très bien mais président Macky Sall gis nga réaction diaspora bi rek warnako jangal lu bari tay kan lay neex président Macky Sall war dem États-Unis wara France ñu koy yuuxoo diko togn ça fait mal à tout le monde mais tay xëy mi ngi dem ay Pologne ay Russie yoyu du bari ay Sénégalais mais président tay bu doon dem ay France dootul yomb ci mom non ça dem kay euh, jitu ay nit ak et eh bien recrute même des nervis sur place. mais hein. mais c'est que. c'est que il la ci non non ni Sénégal nous entaché koy top. même les journalistes légui tubaab buñ France légui nga gis journaliste sont top kon di xol nan la sénégalais yi di France di accueillir Macky Sall muy un problème. sont yow légui sa déplacement sax day créer problème au Sénégal mais nañ régler suñu problème fii parce que on ay TFM wolof problème Australie. pour la première fois dans le journal australien journal télévisé <laughs> pays africain nous taxaw Sénégal pendant 5 minutes parce que le malheur du président Macky Sall moi, dafa nekkoon président de l'Union africaine. Dougoufoune, fu ne affaire xam ko. équipe nationale Sénégal rafle a pas xam ñu ba ñu gis na kay reportage chinois. <laughs> non sama boy envoyé ma xawba dal limi wax limi la. <laughs> non mais <laughs> non mais c'est que nga dañ ñoo sur le plan international pas ko ñu def jëf bi nga xamante ni pour ñun yeneen dëkk yi ñoo ko waroon def mais pap xoolal tey bu police génnee di def conférence de presse naan non oui euh, ñi gis nga kii arme bi mu yor ñëpp ñëpp toog di concentré wu après yow nga dugg sa sa Facebook xool gis affaire bi yëpp. xool et mais xam lal ba laa mënul comprendre foofu docteur. Mhm. c'est que police mi ngi utiliser vidéo jàmbur. ki ko filmé ba pare yow bëgg cee mën a def yenn commentaire yi. te kooku am intégralité vidéo et li ci gën grave. <laughs> ça veut dire quoi. presse bi nga tere mu filmer lol, waaw xam nga presse bu ko filmé woon sax mën naa suturaal police. waaw filmé wu ko. police filmé wu ko. boy booy yi ñoo ko. filmé filmé. léegi nag comme boy, ñi ngi filmé légui. waaw yow légui mënut bul jël vidéo boy, boobu la wax de. yow eh, boo jëlee vidéo oh, boy, intelligence mais mais après motax tax ma la dangay wax ak nit mu la mais niveau niveau Sénégal day wàcc wala qu'est-ce qui se passe man la non. wàccul de xëy na xëy na suñu institution yi ñooy commencé xeex moo leen jaral ba ñu commencé mais le sénégalais parce que ay sénégalais ñoo defar vidéo yi ay sénégalais ñoo ko génne fii France 24 qui fii lañ jëlee vidéo yi. waaw parce que vidéo yi police filmé wu ko la presse non la presse est restée maintenant à partir du moment où la presse filmé ko léegi yow la les dangereux nga presse ah, parce que presse de de responsabilité et tout ça. dina réputation. mais fini ni presse. c'est ah, et puis sur le plan international Sénégal ñëpp plus nañ ah. maintenant sur le plan international mais la wala nga laam mu ne ma maa ngi ñëw maa ngi lay sa tëbal benn affaire <laughs> dem filmer pick-up pick-up yi gaare buntu siège affaire yéeg ci scooter am ñëw na ma grand tëmbal naa la ko. mais mais fii yow Pape Alé bañ lay jàpp ñoom foo foo mën a nekk bu ñu la bëggee jàpp dañ lay jàpp. xam la waa oto gis nga nu mu toll. oto oto oto foog mën a làq fii te gars yi xamuñu fan la <laughs> oto. <laughs> wax nga ay oto yu bari. waaw saa veut dire un peu de respect Nous oh, respectons respecter oh, voilà parce que pour man pour man li xaw que tout ici si moi, mooy dafa Sénégal dañoo bëgg a maintenant suñu xel yi waaw mais combat bi nga xamanteni mom lañu la ñu perte réputation président Macky Sall jël na coup. Mm-hmm. réputation Sénégal jël na coup. Mm-hmm. donc force de défense et de sécurité aussi. mais quand même le nom non damay xaar mission Nations Unies la deuxième chose moy sur le plan économique nga xol xam nga ñu bëri defoon nañu seen commande touriste seen commande sax six mois avant. Mhm. mais à partir de décembre ban touriste mooy ñëw Sénégal. les gens ne prennent maa ngi gis ministre du tourisme di bind lettre di wax ni Sénégal ba léegi pays stable ma ne ko mais nit ñi dañoo dofati nit ñi dañoo dégluti ay ay ay ay bindu ministre wala bindu député les gens li ñu xool mooy les informations yu circulé parce que euh, boo amee mbokk bu nekk à l'étranger ne day ñëw Sénégal da ngay gis ñu koy envoyé ay message tous les jours naan ko non pays bi dafa xaw a instant bu di ko sama xarit mu ne man Sénégal laa booy man dama ñibbi si tabaski si mais gars yi chaque jour ñu woo ma ne ma non bul dem bul dem bul dem bul dem man mu ne ma mais lii man lii ma ne ko ah ma ne ko un Sénégalais de mooy bu sa réew di tàkk nga ñëw ku fi dëkkul nag bu réew mi tàkk day génn. <laughs> loolu mooy logique alors quelle la sortie de crise bu mën a am est-ce que dialogue bi muy woote mën na nekk sortie de dialogue bi fi ñu ne na dialogue ak na dialogue ak ay mbokki paay fi ñu ne dialogue bi mu jox moom moom paay la. na pare dialogue ak ndaw ñi. waaw ah, na bu pare ak paay. paay gis nga ndaw dafa dialogue ak paay paay na ko gëmmal dóor rëqal dóor. booy yeewu am kenn ku la ba gëmmal dóor xëppi ah, léegi <laughs> léegi booy yeewu ci suba wala ni li ngay wax nii sànni nu lii président de la république. bu nit ñi xëccee da ngay da ngay yolomal li nga jël ko paa yi nga jël ko mooy paa yi amuñu benn effet ci xale yi nga war a ñi nga yi ngay diriger nga jël ko ak ñoom le le le mardi le mercredi le jeudi booy dal sa kaw mais amal grandeur taxaw jël ko ak booy président Macky Sall foo mu wax ak xale yi. et d'ailleurs moi j'étais choqué de voir que Macron dafa euh, Covid mu tweet ñun ñuy wax ay 20 morts 30.

ay ay mbokk politiciens yi am doole fii lañ la naan monsieur le président nag taxawal taxawal nga wax ak sa peuple nga wax ak sa xale nga xool jàmm ji. Mhm. parce que jàmm ji moom jàmmam la ba pare soogaa nekk jàmm Sénégal parce que fii njiit bu fi ëpp doole ci àdduna toroxal peuple wala dóor jàpp tëj gisuma ci ko ko ci def. réussir réussir ba pare dem te on kenn mënul xeex ak sa peuple man dama doon wax ak dama ci xuloog ay waa gars yi nekk APR bu ñu waxee man leen mais man

Du violent tàmm ko dañu manifestation Légui, nit ñi dañu du arrêté et puis et puis li que nga xam ñun xamuñu ko yi di gens ak banaliser nañ ko ci kanamu xalé yi ba nga maintenant et puis nañu ñooñu ay sénégalais ay nit lañu man romb taxaw taxaw ça me fait tellement mal ci ont ni souvent avec des personnes dama mais li fi sénégalais ñooy fal président dem leen ni ngeen def campagne ñu xool ko ñu neex ñu fal ko mais lii lépp lépp lépp lépp pan depuis deux ans yow mii doo nekk candidat c'est-à-dire que tout tout tout sa résume sur après lu ñu la wax lépp dañ la théoriser état théoriser la ba nga jàpp ne noonu yow man xawma ma état dañ la ko mais or li yëf yëpp doon leen dong la yow moom doo bokk te yow nag doo bokk loolu yëf yàlla la yàlla moo ko mën jaam mën na sabablu mais suñu borom.

xam nga nekk suñu njiitu réew nekk le Macky Sall bu ñu faloon quoi mu ñëw libérer ñi ne ci prison yi bàyyi waxi troisième mandat. je ne crois pas que am na am na kii boobu. mais mais bi gis nga. bu ko niveau d'esprit boobu. gis nga bu ko deful. gis nga bu ko deful. Mhm. xaw ma de peuple nag ni peuple toll. comment un état jàpp ni peuple mën na reculer Sénégal du peuple boobu Sénégal man euh, non ça fait mal nga xol président Macky Sall lu mu lu indil quoi qu'on puisse dire am lu mu def lu baax amna lo loo xamante mën nañ ko ko mais fi ñu bëgg yob ci mom lay mettre et c'est dommage qu'on retient ci magistère ak limu mu defar dañuy wax li may wax rek bu kiyee dañuy wax né moy président bu dàqoon a tëj président bu ëpp lu mu ci sénégalais et ce qui est malheureux c'est que moi président bu ñun bokk bu mag ñun. waaw ñukay gis muy grand bi di kii ba nek mag léegi. ba commencé be jaaw quoi. c'est que nous on l'a toujours connu. depuis 23 ans. vingt trois ans Macky Sall c'est-à-dire que mérité wuñu Macky Sall voilà quoi ñi nan diou dee na ça fait très mal pour man. mais est-ce que légui est-ce que loolu dina jafé dina yom nga dugg a génn ko ci bop sénégalais non parce que xam nga sénégalais man day bok pour man dafa am fo xamante buñ fa tollé il faut qu'on lève les doutes soigne les blessures. parce que pour moi, lever n'est comme un candidat du ma tere kenn qu'un candidat libérer nit ñi jéem a xool nu ñuy def ba indemniser doomu Sénégalais parce que quand les gens parlent nous ñu fàttee à yi ñu rey di wax ay matériel a nañu boutique bi y a nañu boutique bas mais bon. c'est ah, dafa fort quoi C'est dafa fort fort c'est-à-dire que. nous ñu rey gis nga journaliste yi euh, ay reportage ba jël famille bu ci nekk kay kañ ko réel ñu xol rôle bu mu doon ont hmm. dañ xamni ni ñu ben nit famille famille ay xalé ndaw euh, perspective xalé yi amuñu seen aduna dara mën ak Macky Sall parce que def na xey ndaw yi dafa mooy régler problème bi réglé wul problème tay xalé yi nañu violent mais président taxaw xamni

ñu lay naan sa dëkk yow kii moo lay tànnal ci ngay ci ngay man lu may lu ma dul nangu man Xaadim Bamba hmm. mooy Pape Alé mi moo lay tànnal ki nga war a tànn <laughs> te man sama xaalis ah, su ma génn sama xaalis su may génn di ko fay impôt hmm. man dañ may dagg ca source ba may jël sa mais quand même y respect pour man bi nga xamante ne moo manqué ci euh, état bi ñu koy gérer dañ ko war a euh, séparer ak seen parti ak seen coalition état dafa rëy état dafa diis état dafa solennel état c'est du sérieux ay état c'est ay nit la ay mystère la. Mhm. mais les, état dañu gis dal ci kaw. force rek à la parle même des fois. non da nga leen di xool. amuñu culture politique gis nga Sénégal li ma gën a ni mooy ñi gérer ñi nii amuñu culture politique. et c'est ça qui fait peur Bonjour, wax c'est comme si dañu moquer état bi sax. Ah. boo nekkee un fils d'un homme d'état billahi da ngay taw ba chaque xam yow sa papa xeyna lum la jàngaloon ci état nga. xam nga ah. yow nga am ben respect boo am ci état nga ni ñu koy incarné. c'est une question de mythe. non ça fait mal état mythe mythe la ay mystère la looy incarné la. je me rappelle à, la fac Ben Boy moo remplacé quoi que secrétaire général amical nous toog deux mois trois mois kenn topp ko quoi mu gis président yi bu ni ñu leen daan toppee top kenn topp ko. mu ne mais Khadim mais man lu tax top yi topp ni ma ko ni ñu topé ni c'est mon sama ne kenn nekk fa man nag mooy parce que incarné woo il faut nga incarné yaay président. <laughs> doo génn wala kon di di tëj sa bunt di di xañ sa bopp bu ko yàgg. c'est que Macky Sall est arrivé à ce niveau parce que damay gis sax ñu ne discours à la nation du président ba gis boy ci réseaux sociaux di ko wax la ko non président audio ko rek quoi parce que vraiment. <laughs> mais parce que day taxaw ne euh, ñi deewoon 2021 ñi ngi ciy def ay affaire. mais boo ci deful dara nga defoon ñi dee ni 2023 ni dañ xaar nga def ci dara loolu problème bi c'est-à-dire que. mbaam gàtt na mais ci jur gi la. xale yi njabootam la ñu fekk président de la république pour man ay xarit xay xaritam nañu dépassé ay ñu ay bu dee am na ay xarit bokk nañu dépassé parti beeg yëpp bu ñu nee politique ñu dem seeti ko ne ko président xale yi say njaboot lañu. mën nañ laa tooñ dafa am benn xasida Serigne Touba bu muy bind. naan suñu borom naan ko ñun say jàmm dong lañu. gis nga ñii bu ñu lay tooñ di mooy di def lu leen neex. parce que sañ jéggal rek la yaakaar moo tax ñu lay tooñ. ndax dëgg la sa njëggal rek mën a xam nañu yaay seen yàlla de xam nañ li nga leen tere baaxu ci ñoom xam nañ loo leen wax di nga ko def waaye dañ la dañ la lañ yaakaar ak sa da ngay gis kenn ku def dara sax gëla la lii garaaw def ñu ne yërmande yàlla wallaahi yërmande mais c'est parce que en ah, réalité parce que mooy suñu yàlla uh-huh. yàlla mooy yàlla hmm. président nag dañ ko dénk yooyu yooyu hmm. pouvoir ne ko yow ñun ñëpp yaay suñu kilifa dàqu ñoo jàng maguñu ëpp ñu xam-xam euh, ëpp ñu ëpp ñu daraje gënuñu juddu gënuñu dara ñu ne ko yaay suñu kilifa kooku lu teraanga boobu ñu ko jox da ko war a doy sëkk ba tooñ ko mu xam ne kii daf maa tooñ mu xam ne kii ne ko baal naa la te yàlla tax ndax li ngeen ma dénk pour man man foofu lay xaar Macky Sall c'est-à-dire que yii yi ñu koy dugal yii yëpp mu toog ba chaque mu ne non man Sénégal li ñu ma ji 2000 ba 2023 jënd ma essence. waaw xaw ma lu essence di jar li ma dëkk ci kër goo xamante ni euh, maa ko moom sax bëriwul. état momay jox keur je defal lepp fayal ndox fayal courant te lolou kat sen poche la wax wu ci man man ak ndax jox ma len di bay ah. président Macky Sall ñu bayal ñun ay métit ce qui me fend le cœur j'ai beaucoup d'admiration pour président Macky j'ai beaucoup d'admiration pour moi. nit ki quoi c'était mon ami man. non man man je sais pas quoi man nous mu noppi tout cool et puis ñu dàq ko mu nous. ñëw dama amoon admiration. ouais mais tout le monde hein. mais peuple ni mon ko les jox ko le peuple di amee yakar ci kenen. mais Pape comment tu peux comprendre un nit yaakaar leader. non da ngay wax américain yi nan lañu bëgg a ci Obama dal ci Trump. Trump voilà mais et puis nous nit mën a yaakaar nga ne du bokk. nañ ñu bàyyil bu ñu amee ay dof yu nekk candidat yaaw jàll ñoo nekk candidat ñu ko bëgg a votel votel ko xam nga boo demee euh, aux États-Unis en 2000 élection 2000 yi. Mm-hmm. le candidat de Bill Clinton. xam nga kan moo ko teree jàll benn candidat bu tuddoon Nader. Nader parce que États-Unis ñu bëri dañu yaakaar ni ay deux candidats lay am. Mm-hmm. ay quatorze candidats lay am. mais journaliste ñooy naan ñaar ñi rek ñoo mën a nekk président parce que ñoo nekk ci parti yu mag yi. Mm-hmm. ci ñoon la ñuy def focus. Nader. il mom yefam yëpp il il battait il se battait pour l'environnement léegi ñu ne bu Nader nek loon candidat le candidat des démocrates des dial ndax ñi and ak Nader ay écologistes lañ ki euh, démocrate la ñu voté. Mhm. Nader ne man ku nek président sama yoon nekku ci man lima soxla moy man en tant que environnementaliste ma dem élection pour xam environnementaliste nek ay États-Unis fan lañ nek nan la toll nan la def ba ñu mëna suñu combat kuy nekk président man sama ci mais j'utilise la campagne présidentielle pour xam ñuy def pour poser. Philippe Poutou. parce que l'élection, élection du rek du président. C'est des informations. C'est des informations comme ça aujourd'hui ñi ànd ak Ousmane Sonko mais c'est une information pour ñu xam mooy Ousmane Sonko Sénégal mais mais lolu ku nekk président man ko gën ci Sénégal yalla nek président. ko man ku man don yalla nek na Sénégal mais vraiment mais Ousmane Sonko wala mais Ousmane Sonko mënul woté ay nit top ko mais bëgg nga xam lu muy pesé mais depuis deux ans ñu né ki du bokk man lolu moom lolu moy dag sama xol c'est-à-dire que lutax nit mënu ñu né ki du bokk. te tegu ko ci bëgg-bëggam ci bëgg-bëggam et puis oppo ki la opposant am la moom c'est-à-dire que mais Sénégalais donc ñun ñun c'est quoi donc le, le, la, la signification du, du peuple bu ñu war doon. ak démocratie moy démocratie bi nga xam ñun ñoo wara tañ tànn ku ñu neex nit nañu non non du ngeen ki mom du bok ko ci waxal ku nekk après non non non Sonko mom du bok mais so mais lool moy lan. mais ay nit nag. mais kin te ki warul bok xam nañ ko. mais mais léegi mooy Macky Sall mo warul bok mais légui nag li ci metti moy ki nga ne du bok sa yo jógee pour fexal ko sénégalais yëpp jóg taxaw dressé nga échoué nga jéemaat nga échoué amal grandeur. Les sénégalais yi bëgg ñu mais ça c'est pas ma question. alors nous ñu ñëw ci situation économique bi. avons naa la banque mondiale a donné 154 milliards de naa. 182 euh, milliards. 182 milliards plus exactement. mais nous, avons di que voilà la signature parce que contexte bi xam naa malgré tout ce que l'on dit euh, la signature du Sénégal est bonne et tout ça. signature dëkk moom boo nekkee ci crise rek da ngay dem risque pays. risque pay mooy ah, wóoratul. wóoratul dëkk bi wóoratul mën nga fee dugal sa xaalis mu bañ a kenn kenn ñaanu ko yàlla. Mm-hmm. Mali xëy nañ suba seen président ne mënatuñoo fay benn benn benn eurobond. Mm-hmm. ki ñi leen ameloon xaalis xaar leen ba deux mille vingt cinq deux mille vingt six mënuñu leen fay. Mm-hmm. loolu risque pays Sénégal dëkk boo gis di liggéey wax xëy suba rek banque mondiale di ñëw. banque mondiale moom médecin la rek. médecin la buy faj. buy faj ne vous hmm. wax dëgg du du sa buntu kër. paa yu bëri lu ñu banque banque mondiale parce que 1980 ba fi ajustement structurel yi. ci lañ dàq paa yu bëri. Hmm. ci lañ dàq paa yu bëri. Hmm. moo tax yi xaw contre banque mondiale kay FMI. donc boo nekkee ci situation te li le 10 juin dañoo dugg ci marché financier immobile lépp fa 55 milliards tey ñu indilaat ñu 180 milliards mooy lan léegi yow sa dëkk say dépense wàññeekuwul te day yokk sax te xaalis dugul xaalis dugul parce que Sénégal mënuñu ko téye liñ ko téye fan yi kenn liggéeyul léegi kan moo ñu fay lool léegi perte nga lool yaa ngi lebi te lepp nga ba sa dette toll na ci presque 75 quinze pour cent. Mhm. te yow 70 dix pour cent la ñu waxoon waroo koo passé. fëkk nga place foofu yaa ngi dem ba soixante quinze pour cent yaa ngi ciy tegaat ba pare bëgg a rendre ce pays instable nga xamante ni kenn du ñëw man ba ma gisee <coughs> le ministre du tourisme bind Euh, pour wax ni touristes yi Sénégal dal na mais dama ne bu ngeen xam parce que ñoom dañuy gérer état. Mhm. pare di indi coow état boo xam dafa soxla xaalis mais mënoo gérer état bu soxla xaalis ba pare di indi coow loo xamante ni day dàq client bi. Mhm. léegi nag banque mondiale moom muy institution financière internationale yi fu am jàmm duñ fa jaar. ndax fo am jàmm lepp ne mujj ñoom daal lu ñu mën moy ah nga am projet ñu ne ah projet bi kat baax na bàyyi ñu jàppale la ci projet bi waaye ñu rek jox la xaliss dañuy faj ci Sénégal dañuy faj ci Sénégal ndax xam nañ ni Sénégal dafa perdre ay ressources yu bari te ay investissement yu bari mën nañoo baña ñew ay touristes yu bari mën nañoo baña ñew à partir de ce moment nak il faut que am nañ ay salaires yu ñu wara fay am na ay dépenses immédiates yu ñu wara supporter il faut que nous indiquions ce qu'on appelle mettre une sous financière jox ñu xaalis boo régler les problèmes immédiats maintenant est-ce que loolu mën continuer comme loolu mënta continuer conséquences sur mais terrible c'est que d'habitude les institutions financières si euh, ñu la nous en finance d'ailleurs, naan Pape su ma joxee en contrepartie man euh, man am na que nous ko lu ma koy jox léegi lu koy jox par exemple banque mondiale mën FMI aider ah dama en contrepartie da ngay subventions yu ngay def ci ci ci courant bi wala da ngay subvention yu nga ci euh, essence bi. essence waaye mënuma la jox sama xaalis ba pare te yow il faut il faut subvention bi ci day contrepartie toujours. mais ñoom contrepartie mais quand même situation yi ñu c'est une situation terrible. oui pour man parce que Sénégal dafa dafa dafa tiaté won ndax dafa lepp ba xam nga xam nga dette instrument la. Mhm. Bo démé ba xawa jaxlé nga lepp pour def ci yenn affaire yi mais sa dette dem na ba 75% 70% lañ la may nga fekk ko dem ba 75% quinze pour cent xam nga kon ni mënatoo lebati. Mhm. léegi nag institution internationale ñu lay ñoo ñu nak dañ naan ah mais yow il faut que ñu jàppale mais nga fay say bor tamit pour nga fay say bor mënoo fay nek mënoo amé bor ba par di ay di def ay subvention bàyyil subvention yi. Mhm. appliquer vérité des prix yokkal lii tegal ci li deureum tégal ci li ñetti deureum population bi ñokay fay. nek mhm. population bi nga xamantene amuñu liggéey ñoy gëna son son gog ñuy son nak lén rek mënuñ ko indil ñak stabilité parce que bo amee stabilité nit ñi ñëw investir. Mhm. waye bu xale yi yak au champ yak yu démé non il y entreprise une ah mais man du ma ñëw Sénégal. oui il ah, y' a aucun investisseur qui vient dans ces ah, conditions. à partir de ce moment non man j'étais en Côte d'Ivoire. Une mm-hmm. banque boo xamante ni dafa bëgg a dafa Sénégal mais d'accord na ba 2025. mille 2025 cinq. parce que bon. on sait jamais. en fait xamuñu quoi parce qu'ils disent que xamuñu qu'est-ce que ça va donner d'ici 2024. parce que nit ñi ni ñu est-ce que situation bi ñuy dund kañ lay jeex xamuñu ko parce que. dañu surtout qu'on est à 8 mois d'une année électorale. 8 mois ay Pape Alé te ñi ngi am ay hommes politiques yu mature yu am ay programme des gens tellement intéressants waroon mbëkkante ci ay programme waaw ci ay débat ci ay débat yu loolu la wax quoi ay débat yu profond sérieux ñu xam. ñu pétrole bi et puis pour la première fois Macky offrir une possibilité ñu sanctionner un président sortant mais élire un président. mais moi tax moo tax moo ah, man man ba léegi ba un man quoi président Macky Sall c'est-à-dire que man dama koy ñaan parce que dama bon lu quoi depuis 23 ans Macky Sall est là avec avec nous Sénégal réputation nous y a connu bala muy dem té ni koy defaraatee moy mu tabaski bi mu profito ci woné un grand Macky Sall donte metti na non n'ago ko non jarna naa parce que papa, non parce que li ci li ci li am solo moy Sénégal mak président eh, Cheikh Diop Abdou Diouf ñu palabron sur le Sénégal. Hum. quand bu koy kii étranger palabron direct reetaan quoi mais ils sont comme tout le monde hein. ils pensaient qu'ils étaient mais. di leçon là mais ça te fend le cœur. Hum, hum. et te te xeyna nek président de l'Union africaine Balaka, président Sénégal ndax par un an on est hmm. pays président africaine à un an de la fin de ton de, mandat. Hmm. signe la Sénégal coupe ñu waron jël yépp nga jël signe hmm. signe ni li luy politiquement sa électorat di signe politique ci politique ñaare am da ngay yek ni wala ngay wacc ni am na man benn maire bu ma wax ne ma Macky def na lu ne defar na lu bari Sénégal waaye lim ñu xañ moo gën a riche ci ñun li mu defar ma ne ko ah la la la xañ mu ne ma jàmm. wallahi mais mu ne ma jàmm. mais mu ne ma parce que man musuma dund di gis takk der yu mel nii ci mbedd mi ak ne mu ne ma loolu rek moo tax man dootuma voté ci Macky Sall mais mais man. dama xam ay nit ñoo xamante ni seen problème mooy réputation Sénégal am na ñoo xamante seen tout leur problème mooy non suñu réputation parce que Sénégalais dañoo chauvin. waaw ah. mën chez nous chez nous. chez nous Il y' a plus de chez nous maintenant c'est-à-dire que loolu yooyu yëpp nag pour man ba léegi j'espère que le président Macky Sall ñu ko doon dugal ci lii lépp gis nga bu affaire yi sen suufu tiroir la ñuy dugg wala seen suufu randal do ci dégg kenn bu réew mi di tak une semaine après bu réew mi sedd ci la ñuy génn. ku waaw ñu melni ay raa déggu la xëcc di di waxi dof yu ñàkk waxi dof yu waxi ñàkk fayda yo xamanteni da ngay xamni ñi amuñu fitu sax euh wax lo xamanteni parce que man su jappalé nit en moment de xamé ma crise ak lu dul crise mm-hmm. mais président Macky Sall dafa jot ñi ko gëna a ñi ko bëgg bok wutal ko porte sortie bu rafet nit. mais mom est du ko wutal bopam mais léegi nak xam nga. xam xam nga pouvoir quand même. xam nga xam nga euh, bo jaaree daré tout suñu borom da dafa yonent bi da koo indiloon ku melni ni Seydina Omar. Mhm. Seydina Omar lu yonent bi wax da koy da koy da koy challenge yonent da na dem ba gis bopam te yalla say yi ay Seydina Omar lay andal hmm parce que dafa bëgg won wan lo am am doole sa gis-gis il faut que je pour que je mais c'est que président Macky Sall challenger même buy buy kaf sax kaf mais constitution euh, bon sur le plan constitutionnel y' a pas de problème comme si que j'ai mis le conseil constitutionnel dans ma poche donc. Non, mais ça, c'est évident. ça veut dire qu'on n'attend rien du Conseil constitutionnel ou de la justice par rapport à ces requêtes. Mais le peuple, bi, de Falat Macky Sall. <laughs> Le peuple me parle. Mais maintenant, le problème, moi, man, le président Macky Sall, dans l'élection, nous avons gagné. Le président Macky Sall, hop, Sénégal, quel monde fait cette élection Cette euh, pourcentage, marge, je suis 4%.

président Maxal nit ñi dañ ko méré xawma lu ko wa kërëm di wax xawma ñu ko jéggal luñ koy wax sénégalais dañ ko méré les gens ne sont pas heureux nit ñi dañoo commencé. jàmm lañu ñu parce que non parce que ñun Sénégal réew jàmm lañu mëss di wax. mais buñ dem ba gis ay nit am doolé nek ay mbër di yori arme. waaw et puis nga bàyyi ay xalé ñuy filmer ay nit nan diw la mën ko chasser fekk ko ba kërëm gañ ko ndax lan moom xëy na nervi bobu amul liggéey.

ce peuple là ragal mom jeex na fi li fi am mooy lan mën nga leen dóor nag mën nga leen gaañ demal xool xale yi ñu gaañ lépp nga xool ndax am na benn xale bu ci reculer un yota du ci am taxawal c'est-à-dire que bu doon yow ñi nga gaañ ñi nga dóor ñi ngi reculer nga ne ah ñi kat ñaw fii président du fa wax kenn ñaw parce que be amul benn booy bu détermination wàññeeku lu nii à partir de ce moment xamal ni Sénégal peuple bi institution yi mën na commencé wàññeeku démocratie mais le peuple musuma sommes peuple bu am bu bu démocratie ni peuple sénégalais il vous di nga tac, tac, tac, tac, tac. tac tac mais le peuple ne va pas lâcher et président Macky Sall moom na que le peuple yaakaar bi mu amoon ci moom. Mhm. bu mu ko yàq. man ba léegi daal pour man maa ngi am yaakaar ni mu xam président buy ñëw démocratiquement au au Sénégal. Mhm. kooku rek mooy protéger Macky Sall mais le président bu mu

li gën ci Sénégal pour parce que ñun ñëpp jàmm lañ bëgg bëggu fitna euh, pour euh, les jaar ci ñu démocratie et la volonté populaire c'est très important merci beaucoup docteur Cheikh euh, Bamba dia ngeen de souscrire sur votre chaîne YouTube en vous abonnant et également me suivre mes page Twitter ak Facebook de len émission autour du micro